wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa nabiyina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokki internetu Thiès info ñi ngi dellu siwaat di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar di ñaan ñëpp yàlla defal ñu jàmm yàlla aar ñu sàmm ñu sàmm leen suturaal ñu suturaal leen waaye suturaal bépp mboolum julit ci barke yonent bi mel na ni euh, yaakaar naa ni xam ngeen ni Thiès info actualité boo xam ni xew na ci réew mi di ngeen jàkkaarloog seen mbokk taalibe oustaz Souleymane jaw muy partagé ak yéen ci actualité bu ni mel waaye ku ne gis na ni semaine bi passé waroon nañoo ñëw ak yéen ci lii waaye lu ñu dab la waaye lu ànd ak actualité bi la ba tey te yaakaar naa problème bi ñëpp dégg nañ ko diggante ki di di oustaz du Fall coow li ngeen ci dégg tabaarakallaahu ak kàddu yi nga xam ni dégg ngeen ko ci ki lee di Kouthia muy ay kàddu yoo xamante ni ak coow yoo xamante ni dal na ci benn oustaz waaye itam dal ci benn animateur ku ci nekk am noo waxe moo xam ku ci yàlla am na nu mu waxe ndax ni mu waxee war naa waxe noonu moo xam oustaz Modou Fall la ndax ni mu waxe war naa waxe noonu analise la ak man raa minkum munkaran yonent bi sallallahu alayhi nee na bu ngeen gisee lu mu mën a doon muy danger nara tàkk lu ngeen mën ci def ko na ngeen ko def su fekkente ni wax ngay def communiquer ba jàmm am ci loolu sang bi nee na waxal su fekkente ni am ngay moyen yoo xam ni alal la wala force buy jaar ci sa loxo te nga mën a fexe ba jàmm am yonent bi nee na utiliser loolu mu ni su fekkente ni yooyu yëpp nag demoo ba mënoo ko amoo ko Seydina Muhammad nee na mettit lu ko ci sa xol mbokk yi ñu waral rek waxtaan yaakaar naa ne kuy suivre site bu rëy bu mag bile di Thiès Info da ngeen xam ni bari lu fi jaar ci wàllu actualité ci réew mi seen mbokku taalibe Oustaz Souleymane Diaw di ko partagé ak yéen gis nga mbokk yi. yonent bi alayhi salaatu wasalaam sunu référence référence laxat kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana yàlla du koy yónni ba pare utal ko ay protège ñoo xam ne ñoo koy protéger yàlla yónni na ko mais da ko wutal ay conseil yoo xam ni heure bu naree def lu dul yoon wala mu indi xalaatam teg ñooñu delloo siwaat ko moo tax daan na wax moom sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam ni yàlla suma ma yónniwul dina yónni omar ngir njàmbaaram dina yónni omar ngir fitam dina yónni omar ngir dëggoom dina yónni omar ngir ñàkk complexe am baaxul mu teg jant bi dootul fenkee penku jëm soowu tiim ku mel ni sëydina Omar mbokk yi nañu waxante dëgg te bàyyi jayante jayante baaxul te dafa bokk ci li delloo Sénégal ginnaaw xam nga tey ab oustaz bu ñu ko dee wax mooy boroom xam-xam paa bu mel ni Souleymane déedéet oustaz bu ñu ko dee wax mooy ku jàng diine xam ko maîtriser ci fànn yu baree baree bare bare mën koo jàllale nekk vecteur de message porteur boo xam ni mën na jàllale loo xam ni askan yëpp mën nañ cee jariñu du kuy wax luy gaañ du kuy def luy gaañ du kuy jëf loo xamante ni su ko jëfee àdduna tukki mais bashiran wa nasira inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadhiran wa daayan ila llahi bi idnihi wa sirajan munira ñu taxaw foofu rek mbokk yi ñu taxaw foofu dañuy téye foofu point boobu dañ koy téye mu jëm direct ci côté Oustaz Modou Fall ci côté sunu sunu sunu collègue la sunu naataango la frère Pape Hann bi mu nekk TFM moom lañu xam moom lañu ñu gën a miin ñoo yarandoo Thiès màggandoo Thiès bokkandoo benn daayira soppi Khalifa soppi Serigne Babacar Sy jeudi ñu jëm si Talamine mercredi ñu waa si Talamine départ ñëw jàmm gen kooku laa gën a miin kooku laa xam waaye nul n'est parfait ku mat amul. parfaite création de Dieu laxat xaana laxat xalaxal insaan fii axsani taqwim yàlla dafa bind nit ci gën gaa rafeti bind xam nga Kouthia dimension bi mu ne mais boroom xam-xam la ci xamuloo loolu nit secteur bi mu nekk doon ci boroom xam-xam da ko koy nangul mécanicien bi yow ustaas bi bu dajeeg yow téel sa làmmiñ moo la gën a xam bâtiment comme yaa ngi may dégg wala déet bàcc mécanicien bi na bul ko xeeb boo dajeeg moom ci bâtiment téel sa làmmiñ te déglu ko électricien bi boo dajeeg moom ci courant tëjël sa làmmiñ déglu ko ku ci nekk domaine ba nga ca ba nga yore domaine u xam-xam la ci yow kon Kouthia am na foo xam ni domaine am la war na caa wax am na droit wax ci am na doole wax ci mën na caa composer ndax loolu muy wax domaine am la moom loolu la xam kon mën na caa wax am domaine boo xam ni domaine nu Modou Fall la loolu Modou Fall moo ko moom oustaz la jàmbaar la mi góor góorlu boroom xam-xam la nañ ko apprécier ndax alquran yonent bi wa yàlla waxul ni jàng leen ko ba mu jeex amul fenn fu ko yàlla wax maa xam nga loolu bàcc déedéet déedéet jàng téere bi kaamil gi déedéet ba mu jeex amul fenn fu ko yàlla wax alquran jànguñu ko pour neex baat déedéet tari ko ni tajwid ko mu neex ni ñi daal déedéet du pour looloo tax jug alquran alquran waxuñu la nga jàng ko pour mokkal ko yam ci déedéet waxuñu la loolu déedéet di ko jàng nii di wane ne sa baat daa neex loolu taxut alxuraan jug bu doon loolu rek jarul muy jarul mu ñëw mokkal ko ba mu jeex tàkk téye ko tam mu yem ci yow bu doon loolu la jarul alxuraan di ñëw amul sens alxuraan da nga koy def jëfee ko alxuraan da nga koy def jëfee ko alxuraan lu ñuy jëfe la yaa ngi dégg. alquran lu ñuy jëfe la mais nekkul loo xamante ni dañ koy defee nu munu neexee mais lu ñuy jëfe la loolu la ci yàlla wax moo tax al ilmu wal aalimu wal amal fil janna waaye fa ida lam yaamali bi maa yaalam kaana al wal amal fil janna waaye wal aalimu fi naar xam-xam jëfe gi koy jëfe ak borom xam-xam bi ñoom ñetti ñëpp aljana lu ñu jëm Tunkara invité na ma ñu waxtaane ci l'argent et le savoir xam-xam ak xam alal ak xam-xam Tunkara jamono bi muy def émission Sénégal ca kanam kon kon animateur côté boobu dinaa wax Kouthia ni ko côté boobu duma ma ànd Kouthia déedéet du ma ànd Kouthia mooy fi ma dul ànd Kouthia mooy Pape Cheikh animateur la amul droit poser Modou Fall question déedéet foofu duma fa ànd Kouthia déedéet Modou Fall dañ ko ko yonent bi moo ko wax ni balligu anni walaw ayatan foo mën a ne jottalil ma donte benn aaya la kon moom jàngale rek ko war Modou Fall maçon bi na ko tontu mécanicien bi na ko tontu yaa ngi dégg menuisier bi na ko bu amee question ci wàllu diine lu mu ko ca laaj la mu ca xam na ko tontu xam nga naa légal benn affaire dama toog plateau ki may defandool émission ku ko gën a metti mais Sa Ndiogou ku ko gën a metti amul daf lay perturber du la déglu du la may nga wax ku ne xam na ni artiste comédien la mais format émission moo ma booleeg moom mu jóge ci direction bu mag bi format bi ñu boole maak moom il faut damay damay defandoog moom émission mais da ngay dégg souvent ci waxam oustaz bi dafa tàng xol loolu lay wax ci man parce que xam nga lu tax heure bu ñu ma nangut a déglu rek patt laay def wala ma wala perturbation perturba il faut que ma de débat bi dañuy déglu parce que ñoom la may wax xamuñu ko maa ko xam comme déglu moo leen war loolu tax ñu teg ma fa ma fay jàllale diine yaa ngi dégg kon déglu moom war mais fi may àndee Kouthia nag laa lay wax fële ànduma ak moom ci animateurs yi amul droit poser question mais fi ma doon ànd moom mooy ab oustaz je suis entièrement d'accord avec lui animateur du ko diriger yaa ngi may dégg ab oustaz animateur du ko diriger fi Kouthia amee dëgg tam laa lay te télévision yi ci Sénégal yépp di ko def dëgg la laaj ma mooy fan mooy émission yi ñuy def benn format la ak télé yépp nag dans le cadre général benn format émission la benn format la rek tur yi mooy changé mooy dañuy invité des politiciens ku ne ak sa rythme ak sa façon bi nga koy defee mais suñu ñëwee ba ca place ba rubrique diine bi diine gi rek waaye nañu bàyyi diine gi diriger ko oh, est-ce que yaa ngi may dégg rubrique diine la mhm. mais pourquoi duñu bàyyi nitu diine mu diriger rubrique bi mhm. yow ko invité ab jàngkat mi ngi ci plateau bi. mais nañu xaaj temps bi ay 3 heures de temps 4 heures de temps dañ ko war a diviser par deux yi deux heures de temps yu njëkk nañ ko bàyyee ki nga xam ne oustaz la da koo xam wala ki nga xam ne jàngkat la da koo xam mu diriger émission lu foofu Kouthia di waxee buñ ko xool en tant que animateur ba bañ koo déglu foofu dañ ko war a déglu comprendre li muy wax il a parfaitement raison moo tax mu indexé wax ji moo tax mu osé wax ji est-ce yaa ngi dégg. boo lo parce que xam na ni loolu mu wax borom xam-xam bu mu laaj danaan ko li nga waxee dëgg ku mu laaj nag bu dajoo ma laaj ma dama naan ko li nga wax mooy dëgg fi ma àndut ak moom te ànd fa ak Modou Fall nag wax sànq mooy li ko war mooy tontu rek bu mu xàmmee ku ñuul bu mu xàmmee ku vert bu mu xàmmee ku zone dañu ko laaj ci wàllu diine li ñu ko ca laaj mooy na tontu ci wàllu diine loolu moom je suis entièrement d'accord ak moom la mu ca xam na na ca tontu waaye beneen erreur bi mu def ma koy conseil c'est très grave te gis nga télévision mbapat dafa baax mbapat mbapat dafa baax télévision problème de marketing la ak ak ak encourager la ak jaay la profil dañ koy jaay boo xoolee fi nga départ ak fi nga yegg si dafa am ñoo xam dañ lay jaay dafa dañoo mën a jaay ndaanaan est-ce que may dégg artiste boobu di Pape Cheikh Diallo mm-hmm. jaaykatu ndaanaan la mm-hmm. yaa ngi may dégg bu baax a baax dafa mën a jaay ndaanaan dalay lay fekk kenn xamu la mm-hmm. kenn daawu la may importance mu ñëw créer loo xam ne dina fexe ba ñu may la importance kon nekkatul yow yaay importance bi mooy moom moo créer importance bi. loolu nag professionnalisme la ci seen biir liggéey ñoom te loolu boo yàggul ci ndaanaan yàggoo fréquenté ay ndaanaan duñ la ko expliqué moo tax damay wax ni oustaz bu mu mën a doon da ngaa war a mbappat jaar ci rajo daje fa ak journaliste yi di confronté ak ñoom ak rédaction di am ay mots ñu lay dimbali ci mots français yi ngay comprendre bu baax parce que jamono ji tollu toll bu déggul tubaab sa communication day des oustaz bu déggul tubaab jamono ji ñu toll laa la wax loo bari xam-xam ci wàllu diine diine ji dalay raw tuuti est-ce que yaa ngi may déglu mos naa invité benn émission ma ñëw toog ndaw si ni ma oustaz la dépénalisation de l'homosexualité xoolal lii dépénalisation de l'homosexualité oustaz loolu ban gis-gis ngeen ci am te loolu mi ngi bëgg a xaw biir Sénégal mais bu ma mbappatul woon est-ce que dinaa comprendre mot te nag dem am naa ba niveau dem naa ba troisième est-ce que yaa ngi dégg mais loolu jaar gi ma mbappat Walfadjri bu Thiès bu Thiès avant may dem Dakar daja fa ay Léopold Tamba Père Birahim Sidi Dieng dama lay wax rek grand Cheikh Camara ñu fa daan jaar ndate ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm. ñooñu ma leen daan fréquenté ñu ay ndaanaan Ramatulaay Sarr bii Ousmane Sène dama daal di ay ponkal ma dajeeg ñoom xam rédaction xam luy rajo xam comment faire pour communiquer comment faire pour préparer une émission naka ngay def yooyu yëpp ñooñu dimbali la ci jàngale la ci boo xëyee xëy ñun la eh, tey kar allo oustaz ma ne naam ñun ma vendredi na nga préparé ci lañ ma woowee de midi une heure da ngay def direct télé. mais fekk na togg nañ ko ba pare soo ñëwee koo mën a toogal doo am ak problème kon yooyu day tax boo toogee ci télévision danga nga war a xam looy wax lisaanaka in atlaxta yakul ka kuy woddoo laamin soo noppee rafle erreur bi ngand nag bi nga xam ni du du rafetul Modou Fall dafa juum foofu frère maa ngi lay ziar encore njuumte la bu la dalati bu la kenn dugal ci détail guerrier nga gentleman nga incarnel sa gentleman incarnel li nga bëgg mu dox te mooy message du diine mais bul duggati lii ku mu naqari na nga taal sa gaasu maam toog ci oh foofu séntuwuñ fo ab ustaas déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet parce que soo waxee loolu am ko pànk ku mel ni man wala keneen ku mel ni keneen am fulla loolu wax naa ko benn émission télévision wal fajri ma ni lii ku mu naqari na taal sa kafteeru bàjjan naan ko lu mu jur saaga lu muy jur dalay wàññi sa crédibilité lu muy jur day wàññi sa personnage li muy jur day wàññi sa personnalité li muy al insaaniyatu dafa am solo la personnalité lii tax ñu naan nit nit la loolu dangay dem ba da koy da nga koy perdre Modou kon loolu te la loo xam ni da koy moytu da nga koy sori da ngay taxawee ci beneen place da taxawee ci beneen dimension loolu njuumte la erreur la beneen bi oustaz Beuz oustaz Fashion <laughs> dental gëree la nag gëree la gëree la baat waaye ñun ñoo téye affaire bi suñu loxo ndeysaan yàlla yàgg yàlla sax lu am solo la xew lu am solo la xew li am solo rek mooy ñàkk xew mais yàggul nag waaw loolu yàggul te cat boobu yàlla na ko yàlla dimbali dindil cat baaw nit du catu boppam waaw nit catu boppam ñun ñetti nii nit du compte boppam nit du compte boppam déedéet baaxul cat la daa yàlla wax nii ñun ñetti ñii waaw dañoo téye fii suñu loxo ñoo yor bës bi ñoo ko téye loolu catu la catu sa bopp la fala tazakku anfusakum moom jàng na loolu xam na loolu maanaam nit du tagg boppam déedéet yàlla nee na bàyyi leen di tiituru bu leen tagg seen bopp loolu baaxul baaxul njuumte la ñëpp lay daal nag lii may wax nii nii nii nit dong laa ëllëg mën naa juum mais keneen def ci beneen internet site internet wala toog télévision ni ma Oustaz Souleymane juum nga damay accepter ba bàcc damay accepter l'erreur kon yooyu détail la yoo xam ni franchement euh, bu la dalati bu mu la dalati moo tax kële nga xam ni moom animateur la di Kouthia moom it domaine ba mu nekk mu maîtriser ko miin ko pour mu pour mu pour mu xola pour mu affronter la day yomb yaa ngi dégg wax ji bàcc pour mu ñëw song ko day yomb parce que la li muy wax danaan oustaz kenn séntuwu ko woon fii c'est vrai loolu ngay wax gis nga gis nga mu bi indi nga ko ndax oustaz ci weeru koor gis nga li ko wax mm-hmm. oustaz day ci weeru koor am na leneen lu ñu doon séntu ci moom mm-hmm. lu dul ay buzz ay fashion mm-hmm. ay terme la nag yu xew ci jamono ah, mais wax yàgg naa wax ni buzz dina sàng ko ne bës dina sànq ku ne bës bu duggee dëgg ba dugg la est-ce que xam nga ni soo gëmul yàlla tuure da ngay foog ni asamaan si bu doon wàcc sax da nga koy téye ñu bari liñ ñàkk bëse leen ko teg fuuy bari tiitër baaxul beneen bi may daanele ci point boobu xam nga mooy Macky Sall loo am na droit may oustaz Modou Fall xaalis nag gars yi nañ waxtaan wax dëgg ca am na ci droit de Mbacke. am na ci droit. waaw Marème Faye Sall bu ma dama koy dem wuyu ji. waaw moo may xaalis damay jël Mbacke nit ñi naa mhm. lan ko lan ko jox yàlla na ko muurloo. la président maki jox yàlla na ko muurloo. li ko Marème fay Sall mel may yàlla na ko muurloo yàlla na ko jég. mais la jox communication baax. ak jàng ko ak di fréquenter ay ndaanaan ñu lay teg ci yoon. xam nga Iran Ndao ñaata yoon nga dégg mu ni Marème fay Sall may na ma xaalis est-ce que juróon na bës lii très dangereux sama grand boobu maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax ku baax la nag mais ndaanaan la waaw ku baax la Iran mais la ndeysaan mm-hmm. ku baax la sérieusement parlé grand bu baax la loolu rek lañ mën a sedd ci moom. Mm-hmm. gis nga bi muy wax ni Marème fay fii nii promenade bi. ci programme am. Mm-hmm. fay sal Sall ñëw na defal na ma Macky ñëw na defal na ma. gis nga jamono bi mu koy wax. jamono boobu la doon wax naan Macky Sall bàyyil Khalifa Sall. jamono boobu Macky Sall bàyyil Khalifa Sall xoola teguñu ci ay weer ko moom ñëw gis nga mu wax teraanga bi ko Macky defal wax teraanga est-ce que na bës communication ba fa mu ko dugal la xoola fa mu dugal wax jala est-ce dégg fa mu dugal wax ja wax dala am foo koy dugal xam nga tey ji bu bu tëbee wax loolu mais bari na oustaz yu bare bare bare bari daan mais président de la république kon dafa jeng ñun ñëpp ñu ay oustaz mu sepp ci benn nit rek may ko teraanga est-ce que yaa ngi may dégg est-ce que kon moom ni mu waxee président bëggee ko noonu est-ce que ni mu waxee Marème Faye Sall bëggee na ko noonu yaa ngi may dégg sukkaru koor gi imaam yi ci dëkk bi mu fassiroon yi doon tafsir alquran ñu nekkoon ci télévision ñaata oustaz lañu ñaatay borom xam-xam lañu ñu romb fa ñoo ñëpp ñoo yow defal la teraanga boo ko publier rek rawatina président de la république dafa am foo koy dugal day dal nit ñi dinañ ci jot mais boo ko dugalee ci contexte mer ma ni ko mu naqari taalal sa gazu baaj maam nga toog ci oh loolu rek mooy danger bi gar amoodu mon frère cousin loolu rek mooy erreur bi mais njuumte la nag bu mu la bu mu la dara doonoon daanaan ndaanaan nga daanaan nga daanaan nga daanaan dëgg nga parce que bi ngay lancé message yu baree bari jaarle ko ci TikTok bi ñu bari dañ ko doon jël di ko utiliser di ci dund di ci déglu di ci jàng damay dégg sax gars yi naan oustaz Tino oustaz TikTok amul information yi mu doon wax yëpp lu dëgg lu wér la yow kay yaa koy jël am sa problème ca laaxira ni xaaral ma utiliser waxu Modou Fall ba mais moom waxee wu ko woon pour loolu. faut qu'on se dise la vérité da ko doon wax pour jàngale da ko doon wax pour wane talent am hmm. mbër mu ne da ngay dugg ci bagage yi moom TikTok la ko jaare yàlla defal ko ci barke. est-ce que yaa ngi dégg kon côté boobu damay wax rek ni bu mu ko dalati l'erreur est humaine amul ku dul juum nul n'est parfait mais nag ku caatam dimension ba mu ne ni loo ko bañ bañ bañ bañ lëg lëg ko bañ bañ bañ nangu ni dafa dafa gudd nopp moom it dimension bi mu ne ndaanaan la ñoom ñaar ñëpp nag ñoo yem ci man même pied d'égalité xam nga lu tax ku ci nekk am nga loo joxe ci réew mi bul xeeb ku ci ne am na njàngale mu rëy moo njàngale ku ne nag ak sa dimension nit ñi nag bu ñu soxor man bëgg moo ko méchant bàcc ni nga may gisee nii injustice du ma ci dox méchanceté du ma ci dox soxor iñaan bon xol fa bari ci réew mi di Sénégal yàlla ci yàlla musal baaxul day wàññi wërsëg boo soxoree wala nga iñaan wala nga bon xol non seulement doo avancé mais lu la jege doo avancé moo tax des fois ñun suñu biir fi comme fii ëtt la bu ñuy waxtaane mën nañu joxante leçon man ku ma yedd ma jël màcc ku ma yedd ma jël kon côté boobu loolu rek lañ ci amoon luñ ci sànni incha allah di niw ñëpp di ziar ñëpp lépp luñ ci wax muy njuum te tam ñu ngi koy jéggalu ci ñoom ñaar ñëpp nag ñu ngi koy jéggalu bu baax a baax lépp loo xam ne wax nañ ko tam muy leçon nit ñi mën cee jariñu ñëpp lañu xam ni jàngale rek lañ ci jublu woon ñu ngi jéggalu ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.